sëñ Fallou nag nee na. lu la nit gën gën nga sañ koo roy. nee na lu la nit gën gën nga sañ koo roy. bu roy kenn ku dul sëñ Bamba. bu ñu roy kenn ku dul señ Bamba. nan ko na nan ko na dann rek. kuy dàq te dàqoo ko dul Serigne Touba. dàq te dàqoo ko dul Serigne Touba. kenn doo la jot. kenn doo ko jot mukk waaye kenn doo la jot yow. murit war ta nekk fenn. murit war ta nekk fenn. ñuy xeeb dara ci lislaam. ku ko def. ku ko def. sa bopp nga ko defee. sa jikkoy bopp nga ko defee. waaye jëfewoo ko. waaye jëfewoo ko. jikkoy ka nga wax ne mooy ka nga wax ne mooy sab sëriñ. nañ dellu si te ne na nañ dellu si te xam ne jébbu lu doyut de. sëñ Tuubaa lañ ko wax. sëñ Tuubaa lañ ko wax. dafa am ko ne man de Mbàkke damaa bëgg a jébbu. nee na dafa am ko ne ko man de Mbàkke damaa bëgg a jébbu. mu ne ko jébbu da ay wax rek. mu rek la. biñ ko waxee nañ ko. biñ ko waxee dégg nañ ko. boo ko jëfee jàpp nañ ko. erreur boobu nag ci la ñu nekk ñëpp. nee na erreur boobu nag ci la ñu nekk ñun ñëpp nag boo xasee jébbalu loola neex def loola neex wax. defu ne nag bu xasee jébbalu loola neex def loola neex wax. doo jaamu yàlla. doo jaamu yàlla. doo teral kenn. doo teral kenn. amoo yar. amoo yar. amooy teggin. amooy teggin. amoo ah, amoo sutura. amoo sutura. nangoo liggéey. nangoo liggéey. nangoo jaamu yàlla. nangoo jaamu yàlla. amoo genn kilifa. amoo genn kilifa. boo faatoo sëriñ defe ne boo defe ne boo faatoo sëriñ Tuubaa mi ngay tuddoo. mu yóbbu laa jën. loolu mën a doon. nee na loolu ku mën a doon. de tam ne ci sam xel. gëmoo Serigne Touba. aljanna kenn moomu ko bët ci yóbbu kenn. aljanna kenn moomu ko bët ci yóbbu kenn. ku ne ëllëg. ku ca dem kenn ku ne ëllëg. sa bopp la ca yóbbu. sa bopp la ca yóbbu. boo fi ne fi mu ne Tijaan ak koo fi nekk muy Murit Tijaan ak Murit ak Xaadir koo ni ci sa taalibe faatu na. kañ la dong la lay wax. kañ la dong la lay wax. gannaaw xamul kañ la nag. comme gannaaw xamul kañ la nag. xamul nan la. mu ngoog. koo mën a yaakaar te jëmoo jëmoo yàlla. koo na a yaakaar te jàmmoo yàlla. doo dem aljanna. doo dem aljanna. Sëriñ Tuubaa naa leen yaar. wut lu ngeen ko yetteele. liggéey ak jàmm yàlla. adduna lu ngeen ci gis. adduna lu ngeen ci sutura rek la. dëgg dëgg teraanga. dëgg dëgg teraanga. àllaaxira laam. ku bëgg sutura sa adduna. ku bëgg sutura sa adduna. da ngay nangoo liggéey. te bañ a yàq. ku bëgg teraangay àllaaxira. da ngay nangoo jaamu yàlla. te sax. kon nag loolu rek na ngeen góorgóorlu. kon nag loolu na ngeen góorgóorlu. maa ngi koy dénk sama bopp di nga koy dégg sam ci jaamu yàlla na nga ko war a jaamoo. wattandiku mboolem lu muy tere. wattandiku mboolem lu muy tere. boo faatoo. boo faatoo. doo gis sëñ bamba doo ko dégg. doo gis sëñ bamba doo ko dégg. na ngeen ko xam bu baax a baax de. rajaau jannatin bila taahaati bi sunnati maahi xuruliyaati. ku yaakaar ne da nga tabbi aljana ëllëg. ku yaakaar ne da nga tabbi aljana ëllëg. ci dul topp sa borom. ci dul lu dul topp sa borom ci ni nga ko war a defee. sunnas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni nga ko war a defee. Serigne Touba ne kum mën a doon. Serigne Touba ne kum mën a doon. bu ëllëgee da nga dajeeg war yu rëy. nee na bu ëllëgee da nga dajeeg war yu rëy. kenn waru la yaa war sa bopp. kenn waru la yaa war sa bopp. tallaahi laysa yanfahu sax saxadaa inda ulu lansihi xayrul udaa sëriñ Bamba waat naa ci màggug sunu borom gi ne sëriñ Bamba waat naa ci màggug sunu borom gi dara du jëriñ ab jaam ëllëg fu dul wàccug bàmmeelam nga du jëriñ ab jaam ëllëg fu dul wàccug bàmmeelam nga fa wàcc bàmmeelam nga lu dul fekk mu aw siraatal mu sax lu dul fekk rek moo woon yor siraatal mu sax ma mu ngoog na ko ñëpp déggandoo sëriñ Tuubaa daan wax ne adduna àllaaxira yaar yu wuute nee na sëriñ Tuubaa daf daan wax addina àllaaxira day yaar yu wuute dikk leen man leeral leen ko man mi amul fenn kumpa. dikk leen man leeral leen ko man mi amul fenn kumpa. yàlla dimbali na ma ci. yàlla dimbali na ma ci. yetti yëpp yetti yëpp. keroog ba àdduna sosoo ak léegi. keroog ba àdduna sosoo ak léegi. liñ ci weesu. ak tey jii ñu yendu. ak tey jii ñu yendu. ak ëllëg jii ñu jëm di àllaaxira. ak ëllëg jii ñu jëm di àllaaxira. ñetti barab yooyu laa yemale. ñetti barab yooyu laa yemale. aw ma ci kumpa fenn. yàlla boole ku ku yàlla boole nag ku mel noonu. te nga aw ci ndigalam. te nga aw ci ndigalam. war ngaa sant yàlla bu baax. adduna alaaxira nag li ñu ne adduna ak alaaxira nag li ñu wuute. adduna boo fi xasee ne. adduna boo fi a am. daraja joo mën a am. ak màggay boo mën a am. ak màggay boo solo ci nit ñi. ka gën a ci saayir. bu la bëggee gis te dogu ca. bu la gis. foofu foofu nag la wuteeg àllaaxira àllaaxira moom ña bokk lu ñuy def dong cay gise àllaaxira nag ña daa bokk lu ñuy def dong cay gise ña daa bokk lu ñuy def bokk lu ñuy def ñoo cay gise ña bokk rek cay gise ñaa ña lu ñuy def rek cay gise mooy wax Sëriñ Tuubaa doo yokk doo wàññi ne mooy wax Sëriñ Tuubaa de doo yokk doo wàññi waaw waa ji dikk na ko waa ji dikk na ko Mbàkke man di damaa ñëw fi yow ngir ñetti yëf sëñ bi ne ko bisimilah mu na ko damaa ñàkk ndey ñàkk baay ñàkk na jaay sëriñ bi ne ko nga bëgg lan na toog fi yow ngay sama yooyu sëriñ bi na ko wax nga lu baax da ngay tàggoom dangay ngay yëgle mu ne ko damay tàggoo loo ma digal ma def ko mu ne ko kaay dellu fa nga jóge woon boo demee digal naa la na def jaamu yàlla muy sa baay na nga def liggéey muy sa yaay na nga def dool doy lu muy sa najaay tey siyaare waaye ñàkk yooyu jarut ñëw fii jarut dem feneen ndax foo dem jël mu fekk la fa te danga ko fa fekki